bul fàttee bés cloche de notification bi pour vidéo buñ dugal nga man see jot. ndaata luñu fang kenn du ko jeex image yaa ni je pense que la preuve par l'image est là. li nga xam non c'est-à-dire gis nga euh, dëgg bu joté dañ koy wax té yalla tax quoi euh, Ousmane Sonko li nga xam ne def nañ ko ko tégul fenn teguwul ci yoon euh, parce que sénégalais la comme man comme yow comme président de la république comme keneen donc liberté d'aller et de venir ñun ñëpp constitution moom moo ñu ko may doomu réew mi la am na ay activité mi ngi koy dox bu fekkee ne dañu jàpp ni trouble à l'ordre public mën na ci am les postes de défense et de sécurité nañu taxawaay taxawaayu sécuriser li nga xam ni moom lay def moom jógul woote campagne jógul woote li nga xam ni moo di meeting dafa jóg di def lu mu tuddee nemmeeku tour donc ñeneen dañ fiy jóg di def seen ay tournée kenn du leen bundu xataal kenn du leen kenn kenn du leen dàq donc tey am na fitna bu nga xam ne moom ak acharnement bu ñuy teg ci kaw Ousmane Sonko nii nii nii nii lii euh, Mor wax léegi mooy dëgg nit bu fekk parce que Macky Sall lan moo ko indi au pouvoir dañu ko téye di ko bund xataal di ko xataal injustice bobu tay mom moo tax ba nit ñi dem mer fippu and ak mom bu yóbbu ko au pouvoir aujourd'hui acharnement bu gëna tar bobu lo ñu gis ñukoy tek ci kaw Ousmane Sonko et ça c'est pas normal nañ ko bàyyi mu def ay acharnement c'est de l'acharnement mais bu amé ben incident la xewee Alaaji Malick Mali c'est de c'est de c'est de l'acharnement je suis désolé mais ça c'est de l'acharnement parce que li ñu gis bu fekkee ni ñi nga xamné tay moy population yi bi ñu génnee wuñu xéer déconné wuñ defuñu dara lu nga xamante ni nii luy troubler ordre public la je ne vois pas de raison pour lesquelles ñu leen di gazer di leen sànni ay grenades lacrymogènes soo ko am na droit comme tout le monde def tournée tournée boobu muy def bu fekkee ni benn fitna amu ca amuñu sañ-sañu di ko ko tere parce que constitution Sénégal moom moo ñu sut ñun ñëpp moo sut loi bi moo sut force de l'ordre yi dem ak dikk ci doomu aadama bu dëkk ci réew ken waru ko ko tere leneen li ci des nag c'est des considérations yu nga xamante ni xëy na ci wàllu politique la on aura la version peut-être de la gendarmerie mais ce qui est sûr et certain moo di ni am na àq ak yelleefu Ousmane Sonko bu ñuy salfaañe ndax dem ak di kenn mënu ko tere kenn ci biir réewum Sénégal